asalaamaaleykum wa rahmatullah madame la ministre maa ngi ñu nuyu nuyu tamit euh, messieurs les ministres monsieur le président chers collègues députés maires collègues de la presse euh, madame la ministre ñu bëree bëri nañu jaar fii wax say compétence ak sa mbaax vous étiez mon avocat dégg nañ ko géral nga ñu géral nga ñu foofu noonu rek laay ñëwaat man loi bi nu ñu ko libéré amnistie bi dafa am koo xam ne dañ faa yegg rek dugal ne képp koo xam ne personne nga say droit civique ak politique bi nga ko retrouvé looloo def loi bi benn fourre-tout lépp nekk ci biir te foofu le problème bi commencé les manifestations du mois de mars deux mille vingt et j'étais à la radio et à la télé ma doon def direct janvier 2022 ma nekk maire 17 juin 2022 j'ai été arrêté et emprisonné Guédiawaye nag le 31 juillet ma nekk député le 6 mars 2024 ñu woo ñu fii ne ñëw leen ñu voté ab loi d'amnistie monsieur le madame la ministre dafa am ay ministres yoo xam ne ak ay procureurs yu jàkkaarloo woon ak taskatu xabaar yi am ay kàddu yoo xam ne dañ ko fee yëkkati wax ko fi réew dem nañ ba toll benn instant bu ne ku nekk yaa ngay daw di wuti foo dugg parce que état du caaxante état du yëfu xale su ay ministre de l'intérieur wala de la justice wala ay procureurs dem ba xamal ñu ne am na ay nit ñoo xam ne rax nañ ñu ay forces occultes ay forces spéciales ay rebelles ay terroristes et cetera et cetera ngi fii ci biir réew mi ñëpp reculé ne bàyyi xel ñu parce que état bi waxoon tout balaa ñoo voté loi ne dañuy seetal kii wala kii war nañoo xam ñooñee nga xam ne ñooñu raxoon anañu chers collègues députés yéen ñi benn Benno Bokk Yaakaar di waa APR. ñii féete fii ñu jàppee woon leen ay terroriste jàppee woon leen ay rebelle jàppee woon leen jàppee woon leen tey dafa mel ni yéen bi ngeen di ñëwee tey da ngeen waroon changer place ñii ñëw ñii yéen ngeen dem nekk je veux être constant sama kàdduy démb bokk ak kàdduy tey loolu si nga ko képp koo xam ni say kàdduy démb dafa safaanoo ak say kàdduy tey baal mu de koo xam ne nag say kàddu yi démb ak say kàddu yi ñoo bokk kooku mën ngeen a ànd lu jëm nag ci wàllum loi bii man de duma ko voté avant ñu fee ñëw laa wax duma ko voté tey duma ko voté ëllëg parce que Guédiawaye dafa nekk di victime am na benn doomu aadama boo xam ne barki dee mooy jaay li génn maa ngoom ñoo bokk am nañu Papis am nañu euh, Mohamed am nañu doomu procureur Aliou am na ñu ay saccage am nañu am nañu am nañu am nañu ñoo xam ne doomu aadama yoo xam ne ay bitim lañ ba fii may wax ak yéen ñii daw nañ am nañ benn am nañ ba am maire boo xam ne dafa gàddaay di maire golf ba ki dem mooy yaay lay doog a am nañ ñeneen ñoo xam ne daw nañ ñu bëgg a xëy benn jour rek wax ñëpp ne li xewoon yëpp teg leen ci suuf ñu ñëw ci wàllum jomaay ak Sonko mi nga xam ne foofu ngeen rof galgal pour nous mettre en mal ak population mais Diomaye conseil constitutionnel libéré na ko le fait que mu ne ko candidat nga mooy da ngaa set Ousmane Sonko ni ko bàyyi kaso benn portable la portable loolu mooy wane ne kon affaire yi duñ caaxaan parce que bu dee wàllum sursis ba duggul kaso bu dee wàllum affaire Adji Sarr loolu nag moom contumace ba dindi na bàyyi leen nit ñi ñu dem ñibbi seeni kër waaye loi bi mënuñu ko voté lu mooy lépp dafa leer lu jëm na ci wàllum réconciliation nationale ñun ay jullit lañ loolu la ñëpp wax président El Hadj man moom laa àndal président El Hadj Malick Gakou bis bu yàlla dogalee mu ñëw jël réew nii sénégalais yëpp seede nañ ne nit ku dal la nit ku yaru la nit ku baax la nit ku mën a jubóori nit ñi dañuy dem ba di tuumaal ne kii nekkul politicien loolu nag moo ñu nekk suñuy kaddu loi bii duñ ko fi voté tey duñ ko fi voté ëllëg wasalaam Seydou Dianko, vous avez la parole. Absent. Adi Mergan, vous avez la parole. Suivi de Amingel.